asalaamaaleykum mbokki sa di seetaan seen télévision leeral TV ak euh, leeral point net tey nag ñu ànd ak yéen ci seen émission leeral santé leeral santé bu ñu ko waxee xel yëpp day daal dem rek ci wér-gu-yaram tey nag ñu ñëw rek ngir waxtaanee li nga xamante ne mooy wàllum dépigmentation ñu gën ko xam ci xeesal ba tax na dañoo ñëw rek seet si waa kër docteur ñu fas yéene andil ñu ci ay leeral bu baax a baax laata ñuy xuus si biir dañ koy daal di bàyyi mu nuyoo ba pare euh, soobu ci waxtaan bi. alors euh, docteur Ndiaye tey ñu ñëwoon sees la rek ngir waxtaanee li nga xamante ne mooy jëm ci wàllum dépigmentation laata nag ñuy xusi waxtaan bi dañ lay bàyyi nga nuyu téléspectateur leeral li lay seetaan. asalaamaaleykum ah, téléspectateurs yi maa ngi leen di nuyu di leen sant di sant waa leeral TV di leen dalal sama kër gi tey nag ñoom dañu ñëwoon pour tasaare. yéen nit ñi sensibiliser leen si benn point boo xam ne dafa méngoo dëkk bi mooy xeesal tubaab tuddee que la dépigmentation artificielle dépigmentation artificielle nag dafa doon loo xam ne muy xeesal bi yàgg na si Sénégal ba mu fi dooree mat na plus de quarante ans que ay année quatre-vingt-six la fi dugg ba léegi nag nit ñaa ngi koy def am na ay jéego yu ñu ci def si ay association voilà am na nag ay tamit ay loraange yu muy indi xam naa leen si xuus si kanam. Mm-hmm. yan étape la xeesal di tàmbalee ban étape ba ban étape. Ah, bala may wax sax mbiru xeesal xam nga der bi ñu bari dañ ko xaw a ñàkkal solo der bi nu ëmb dañu yaakaar ne rek lu nu ëmb la xam nga der organe la comme ni cœur doone organe comme ni poumon doone organe. der bi nag daf nu ëmb doon del bu ñuul boo xam ne yàlla daf nu si may lu bari sunu der bu ñuul bi dafa am ay cellules yoo xam ne dafa yàlla mu ngi ko tuddee les mélanocytes cellules yooyu ñun yàlla daf nu may moo nuy aar si naaj bi moo tax cancer yu bari yi nga xam ne naaj da koy indi nit ku ñuul lim koy faral di dal du bari biir der bi tam du lu nu ëmb rek dafa am ay cellules yoo xam ne tey jii ñoo ñu yee si sensibilité cest a dire que tey jii suma la tegoon lu tàng rek sa der di nga xam ne lu tàng laa la teg dafa am ay cellules yoo xam ne ñoo ñu yee la sensibilité de la peau dafa am tamit ay cellules yoo xam ne bu ay microbe ñëwee ñooy yee yeneen cellules yoo xam ne ñooy ñëw xeex ak bi moo tax léeg-léeg di nga gis benn microbe teg su sunu kii sunu organisme bi xeex ko ndax dafa am ay cellules yoo xam ne ñooy yee gendarme yi nga xam ne ñoo ñëw xeexam microbe bi donc bari na ay xeetu cellules yoo xam ne dafa nekk si biir peau bi di jouer ay rôle yu bari donc mu bëgg leeral nit ñi rek la nit suñu poob yu ñu am c'est un organe c'est un tout c'est si suufu peau bi itam dafa am ay vaisseaux sanguins loo si teg loo si teg dafay dugg si biir jaar si biir deret bi loolu nit ñi xamuñu ko ñu bari dañ yaakaar rek po bi lu nu ëmbale nit mais si suufu po bi dafa am ay cellules vasculaires yoo xam ne léeg-léeg boo si tegee dara mën na ko mucc mu jaar si biir deret bi ëllëg indi la ay loraange donc loolu il ñu tënk ko mu leeral nit ñi. léegi euh, xeesal kañ la ñuy mën a wax ne nit ki mu ngi xeesal. nit ki mu ngi xeesal bu commencé utiliser produit xeesal. produit xeesal bu njëkk ba sax. nit ñi dañ daan utiliser ay produits yu toxique di dem di jël ay eau de javel di ko def seen tànk yi di si takk ay ay ay ay kawas mu leen di ñaral loolu ñu ngi ko tuddee woon ñaral à l'époque ah, mu doon bu bu metti femmes yi dañ ko daan def di utiliser ay dérivés mercuriels ay produits yu toxiques mais léegi bu ñu ko tënkee xeesal ñaari produits rek ñoo am sur le marché muy benn produit bu naan hydroquinone ak benn produit bu naan corticoïde corticoïde bi nag moo lay xeesal xeesal bu xe gaaw bi moo nekk ci marché bi ñu koy jaay te dañ ko tere am na benn produit bu tudde clobétasol boo gisee tube yu bari moom la am ay Movatoxone produit yu bari yoo xam ne rek boo gisee ci marché bi dañ koy jaay te nga gis mu am benn molécule bu naan clobétasol clobétasol boobu nag mooy dermocorticoïde bi gën a puissant te boobu day leeral nit te baaxul day indi ay loraange beneen produit bi nag mooy hydroquinone hydroquinone bi nag am na si yenn produit yi am na ay toxicité dafay joxe ay taches yu ñuul mën na ëllëg tamit bu fekkee ne yàgg na am na quelques document yi wax ne mën na indi ay cancer de peau donc produit yi mooy ñaar hydroquinone ax corticoïde bu nekk nag dafa am ay lorange mën nañ si xuus. li xamante ne mooy euh, glutathione. damay dégg ñu koy wax. wala ñu gis ko si marché bi ay produits yoo xam ne dañ siy bind glutathione. non glutathione produit la boo xam ne recul bi ñu si am ñun yàggul xam nga bi mu fi duggee nii si dëkk bi bariwul actuellement réseau sociaux yi dafa bari ñu koy jaay et puis xamuñu produit bi c'est produit boo xam ne dañ ko daan utiliser en milieu scientifique pour faj après ñu gis ne. dafay leeral ay nit léegi c' est un produit qui est très très dangereux surtout femmes yi fii ni ñu koy utiliser dañuy utiliser de fort dose de fort dose di ko perfuser wala di ko piqûru donc glutathion boobu mun na la indil ay toxicité rénale mën na la indil tamit benn feebar bu naan un syndrome de Lyell mooy sa nga jékki-jékki rek sa yaram du ko supporter allergique nga jékki-jékki mu mel ni dan la lakk ce qu'on appelle un syndrome de Layel dafay mel ni rek da nga jékki-jékki dugg si xal génn le syndrome de brûlure vif donc euh, glutathion boobu faam yi koy xeesal pour ñu mën si xees il faut ñu utiliser de très fortes doses et les fortes doses son extrêmement toxiques pour le corps donc c'est là où la dangerosité du produit par contre boo ko utiliser à de petites doses comme aux États-Unis aux États-Unis par exemple dangay ngay dem ñu ne la mën nga utiliser da ngay dugg dans une dans un institut de beauté ñu ne la mën nga jël glutathion mais glutathion da nga koy jël da ngay signer déjà un cahier de décharge ñu defal la nga jël 2000 bi le dosage de 2000 est permis aux États-Unis dans les structures de beauté mais boobu daf lay rajeunir juste rajeunir rendre élastique sa peau ça sa fait dans des pays développés mais fii malheureusement au Sénégal les gens utilisent de fortes doses et les fortes doses sont dangereuses. li nga xamante ne euh, njëkk dañ gis ne bu ñuy dee xeesal diwul yi dafa bari dafa bari am na ay piqûre ay suppositoire wala ay moom laa la wax mooy glutathion bi c'est très très dangereux surtout quand utilisé avec de fortes doses te fortes doses yi ñoom moo leen di xeesal. en perfusion les faibles doses ne t'éclaircit pas dafa lay juste rek defar sa yaram ay suppositoire yeneen piqûre yooyu mënul la leeral c'est pas possible sa waa ñu utiliser ay piqûre corticoïde pour leeral la te corticoïde boobu boo ko utiliser pour mu leeral la daf lay jox yeneen effet secondaire mën na la jox diabète mën na la jox hypertension mën na la jox yeneen loraange voilà donc actuellement donc si tënk daal le glutathion utilisé à d fortes doses est extrêmement dangereux waaw euh, nga wax ko léegi muy diabète hypertension ak euh, maladie yooyu noonu euh, yooyu ban stade la nit kiy xeesal mën a jàngoon jànkoonteeg ak jàngoro yooyu. waaw xam nga même produit yi ngay diwoo booy diwoo corticoïde à long terme mën na indi yooyu loraange wax naa ko sànq nee naa la produit si suufu der bi dafa am ay vaisseaux sanguins yoo xam ne boo koy diwoo ay années et des années. femmes yi jël clobétasol di ko diw di ko diw mën nañ am yooyu loraange ndax produit bi ngay diw si der bi tamit à la longue dafay am effet secondaire comme si boo doon naan comprimé wala nga koy piqûre léegi nag tout dépend de la sensibilité de l'individu am na ñoo xam ne mën nañ ko diw des années am na ñoo xam ne au bout de quelque temps am na ñoo xam ne xam nga nit ki dafa am ñoo xam ne c'est des terrains qui son très sensibles à l'hypertension par exemple am ñoo xam ne bu sa yaay amee tension wala sa papa xam nga yow tu une famille d'hypertension artérielle donc kooku bu ko diwoo wala mu piqûre ko mooy gën a sensible rapidement pour mu am tension ko un autre donc les risques sont toujours là c'est le terrain qui différent nit ki daal sa dépend de la susceptibilité individuelle nu mënu wax kañ nga koy naan kañ nga koy diwoo ba date bii ngay am tension loolu amul boo ko boo ko diwoo wala nga naan ko nga sentir na am nga ay signes ça dépend loolu mën nu ko wax mhm. ñi nga xamante ne mooy dañuy faral di xeesal ñi gis ne seen dër yi dafay oyof bu baax a baax bu dafay gaaw a dagg wala bu daggee du gaaw a wér lan mooy andi. loolu tubaab mu ngi ko tuddee atrophie cutanée atrophie cutanée mooy boo gisee femmes yi xeesal seen peau day dem ba day collé dafay mel ni dafa manqué ndox élasticité la manqué xeesal boobu ngay utiliser dafay détruire collagène bi seen peau boo ko pincé nii boo ko pincé dafay mel ni lu collabé ñëwaat. alors que dootul am souplesse bi loolu parce que dañuy utiliser ay produits corticoïdes yoo xam ne dafay amener ce qu'on appelle une raréfication ak collage collagène beex acide hyaluronique bi ba nga xam ne euh, ñoom dootuñu am souplesse bi loolu tudd tubaab tudde ko atrophie cutanée atrophie cutanée boobu nag boo continuer tey dem ci yaram bi yëpp moo gis moo tax léeg ñuy teel a màgget ah loolu moo tax ñu naan femme bi utiliser clobétasol corticoïde léeg-léeg boo amee 50 ans dafay mel ni am nga 65 ans ou 70 ans donc dafay indi un vieillissement cutané précoce voilà seen âge de peau bokk du bokk ak seen âge normal. bi nga ce que c'est possible mu retrouver waat peau normale waaw c'est-à-dire que pour mu retrouver waat ko loolu c'est une très bonne question puisque ñoom bu ñu demee ba benn stade bi pour ñu. arrêté xeesal problème la léegi nag ñun aujourd'hui les scientifiques les dermatos les industriels ñu bari laboratoire yu bari léegi yaa gis ñu ngi def def ay produits yoo xam ne dafay uniformiser di éclaircir tuuti sa peau sans de danger moo tax ñun ñi il faut ñu trouvel leen une alternative il faut ñu trouvel ces femmes aussi une solution mënuñu topp rek par exemple bu benn femme ñëwee am xeesal ñëw seet si docteur bi nga rejeté ko boo ko rejeté da nga koy gën a parce que femme bi nga xam ne dafay xeesal dafa am léeg-léeg xeesal bi dafay indi effet secondaire yu bari léeg mën nañ ko rejeter su le plan social da gis femme yoo xam ne seen xeesal dañuy dem ba nga xam ne dañuy am complexe seen effet secondaire yi am na ay taches yu ñuul yoo xam ne quelquefois neexul a dindi ñu am un rejet le plan social am un rejet sur le plan conjugal quelquefois médecin bi tam bu leen bëggee rejeter du sotti. il faut aussi ñu nangoo leen accepter waxtaan ak ñoom trouver leen une alternative loolu nag médecin bu nekk yaay xool yan produit nga leen mën jox léegi laboratoire yu bari yi nekk bitim de ñu ngi comprendre que ne Afrique femmes yi dañu xeesal xeesal bi yàgg il faut ñu trouver leen ay produits des alternatives yoo xam ne di dinañ bàyyi produit yu bon yi di utiliser ay produit yu baax. ay produits yu baax yoo xamante ne pour xeesal la. non non non pour pour seen teint peut-être du la xeesal d'ailleurs sax boo leen ko joxee dañ laa naan produit bi xeesaluma mais yow après yaay comprendre da nga leen koy jox pour mu hydrater seen peau uniformiser seen pour mais avec le temps peut-être du ñu mën xees comme ni ñu xeesee. bu boo utiliser corticoïde da dangay xees boo ko bàyyi nag dangay ngay ñuul léegi nag yow yaay xool psychologie bi ngay jeex ñoom ba bàyyi loo leen xeesal. voilà. mais nga xamante bëgg xees jox ko produit wala nga digal ko produit boo xam ne daf koy ñuulal mën na dem ba ci biir mu demaat retrouver waat souvent day am cas demee noonu quelque fois nga jox leen sa diw ñoom wala nga prescrire benn diw pharmacie ñu dem ne leen diw bi daf may ñuulal dem bàyyiwaat mais je pense que quelque fois boo toogee ñoom ba expliquer leen les effets secondaires am na ñoo xam ne sont compris dañuy comprendre bu baax a baax nga ne leen avec le temps mën nga retrouver certain am na si ñoo xam ne léegi boo xalaatee dañuy utiliser des produits pas dangereux pas dangereux te am na am na ay produits yoo mën utiliser mu leeral la tuuti rek te du la sonal li bon mooy ngay jël sa naaxu corticoïde di ko diw sa yaram comme ni ñuy def dem jël ay crème Movat di ko diw si yaram yi ay clobétasol bi tout le temps ñu ngi koy diw seen yaram ça c'est très dangereux. forcément da war a utiliser lait de coco wala mën nga utiliser huile essentielle ay huile carotte. les huiles essentielles li si baax mooy déjà c'est comme un organe gis nga koor ni ngay ni entraînement le fait ngay def entraînement dafa baax si der le fait ngay naan lu baax dafa baax si der le fait ngay ngay lekk lekk bu équilibré lekk boo xam ne dafa sell te set. dafa baax si der bu loolu ñëwee ba pare nag lan si teg di ko diwoo dafa am solo diw bi nag mën na nekk ay lait yu baax ay lait hydratant yoo xam ne ñu ngi si pharmacie bi maintenant y a toutes les gammes gamme pharmacie boo demee gamme bu nekk am nañ ko léegi donc mën nga ko di ko diw y a des huiles les huiles essentielles sont très bon donc am na ay huile am na ki ak saabu yi ngay utiliser aussi c'est important il faut pas trop ngay agresser ce produit utiliser yaa a des pincures gras yoo xam ne ñu ngi leen di jaay pharmacie wala le savon ordinaire bi rek baax na mais li bon mooy nga utiliser ay loo xam ne dafay agresser sa peau te yooyu femme yu bari moom la ñuy utiliser ah ay saabu njaxas yoo xam ne léeg-léeg day agresser seen peau. saabu parce que saabu bu fekkee da sa saabu bi léeg dafay décaper ça dépend si façon saabu bi ngay utiliser am na des savons yoo xam ne mën na décaper sa peau te décaper peau bi baaxul. ah moo tax nag da ngay utiliser de bons savons ay am na ay gel nettoyant yu baax yooyu utiliser ah, ay liquide ah ay huile huile lavante yu baax yoo xam ne mën nga ko utiliser yoo xam ne c'est très doux pour la peau. Euh, ñi nga xamante ne fan yi dañuy gis bu baax ñu bëri dañuy euh, créer jaxase ay diw ne dañ koy jaay ñu tuddee leen ay chimiste mais jànguñ ko defuñ ko dara dañuy jël lépp jaxase ay diw. ñooñu lu tax lu tax mu dangereux dañuy jël ay produits yu bari xam nga def si seen clobétasol boobu souvent nag mooy indi effet secondaire yu bari que si biir doo xam lu si am et souvent femmes yi dañuy bëgg a leer te si biir dañ si def clobétasol ay tubi tubi tubi clobétasol clobétasol boobu ma la wax sànq nag mooy indi rew yi mooy indi piccu kanam yi mooy indi sànq question boobu nga posé muy atrophie cutanée mooy indi heure yi mooy indi femmes yi okkatu mooy indi tamit à longue boo continuer ay jabet ak ay hypertension loolu nag produit yooyu ñoo koy indi souvent. waaw ah, ñëwee si cere bi waaw nga gis cere bi euh, nit xeesal ba am ay cere ci kanamam am na ay instituts yu wax ne dañ koy dindi ak laser loolu est-ce cere bi c'est très très difficile ko cere bi sax bi gën a méttee dindi mooy bi nekk si doo bi. boobu hydroquinone bi moo koy joxe xam nga hydroquinone boo koy diwoo am noo xam ne dañ koy diwoo dem si naaj bi xamuñu woon ne waruñu ko diwoo mu njëkk li tax mu ñu dañ ko daan diwoo hydroquinone ñi ko daan diwoo fa dans l' esclavage dañ ko daan utiliser esclavage dañ ko daan utiliser hydroquinone mais en Afrique femmes yi dañu utiliser hydroquinone te xamuñu danger hydroquinone léegi hydroquinone boo ko diwoo nga dem naaj si naaj bi dafay am réaction de phototoxicité cutanée c'est-à-dire que fu naaj fi tàppe nga tegoon fa hydroquinone day am réaction moo tax cere bi boo xoolaatee fi muy nekk toujours si digg ginnaaw bi la si kanam bi si seen loxo yi fii mu verte ak seen tànk yi boo xoolaatee famille xees dëgg-dëgg fi naaj wi tàppe rek te hydroquinone bi ñu diwoo hydroquinone dem si naaj bi moo ko indi cere boobu nag une fois souvent surtout bu nekk si dóo bi mu installé c'est indélébile amul ku ko mën dindi cere boobu mooy bi nekk si dóo bi yi nekk si kanam gi sax lunette yeex yooyu léeg-léeg am nañ ay pexe yoo xam ne léeg-léeg mën nañ ko def ba nga génn si mais cere yooyu c'est très très difficile pour mu daj voilà donc loolu ñun suñu xam-xam mayuñu loo xam ne surtout bi nekk si digg ginnaaw bi ak léeg-léeg cere yu vert yi nekk si loxo yi bi nekk si kanam gi sax ñun ñi ñu ngi ut ay pexe ay pexe yoo xam ne léeg-léeg jox ko femme yi mu tane voilà Euh, kentosi il paraît que c'est moins grave mooy kentosi comme si loxo yi comme boo xeesalee dafay am ay ñuul ñuul. waaw kentu yooyu am na mën nañ ko régler ñun bon xam nga famille léeg-léeg bu ñu xeesalee kentu yi léeg du xees day day day ñuul kukku kukku. lan moo waral euh, bi moo dëgër foofu si phalange yi dafay xaw a dëgër du neex a xeesal mais loolu dermatologue yi am nañ si ay pexe pour régler ko. docteur ni euh, temps bi xoj nañu. Mm-hmm. dañ lay bàyyi rek euh, nga tàggu ñu leen doon seetaan nga ñaax leen bu baax baax surtout si tamit ñu ngi si période. waaw message bi may lancé rek toujours mooy wax ne bon euh, maa ngi leen di gërëm di leen sant di remercier waa Leral TV si ni ngeen ñëwee tey pour ñu faram-fàccee dépigmentation mën nañ si wax nag fii ba suba. voilà voilà le message nag bi may jox aux femmes c'est c'est c'est de faire attention dans les réseaux sociaux des produits qu'on utilise xam nga ñëpp a ngi jaay ñi ngi jaay ay glutathion ñi ngi jaay lii ñi ngi jaay lii te médecin bindalu leen ko xam nga te nu toll monde boo xam ne tey jii lépp looy def danga war a xoolaat sa bopp puisque on est très éveillé nit ñi dañu yeewu bala ngay jël produit di ko diw sa kanam sax wala di ko diw seeram da nga ko war a xool estomac di jël produit di ko piqûre mooy donc euh, de faire attention sur les réseaux sociaux vente surtout glutathion yi nga xam ne moom na ñuy jaay à de dose doses glutathion yooyu dafa dangereux mën na indi ay loraange yow méttee méttee métti ci sa biir organisme. merci merci beaucoup. kon mbokk yi euh, ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ci teewlu bi dégg ngeen bu baax a baax li nga xamante ne moom la docteur Ndiaye joxe ci ay tegtal ñu daal di si rek bàyyi xel ñu leen di jaajëfal ci teewlu bi te di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen numéro ci seen émission leeral santé ci euh, leeral TV ak leeral point net.